soixante et un masalikul jinaan albaabu daani buntab ñaareel ba fi razaili ca xeeti ihlam xamal ba bala tàmbali samay wax damay ñaan sunu boroom di ko wax ne abana yal na nu may allahu yàlla mi aji màgg ji ngoor xayra xaafiya ngën ji jàmm fii majmahi daarayni ci mbooleem yaari kër yi muy addina ak alaxira amin xayra xaafiya jàmm jot du dog mukk amin anna razaila naka caay caay ya mina zunubi bayi ko ca wakkaar ya moorisatun dañuy joxe xasaawatal xuloobi wawa xol kasratuha baril caay-caay ya nag tof di day eggale jaam ba ila saqaawa jëme ko ci ak texeya di watar di ko ci sunu borom dàq ko ba du dugg àjjana wal irmaani eggale ko ci sunu borom xañ ko yërmandeem wal day eggale ca ña saay caay ña koy jëfe leen di eggale ci ak noono wa suhmuha ay gaafam moom caay caay yàkkoonu day nekk saa juli di loo xam ne sunu borom da koy gaawe fay ko saay-saay ba fii ci àddina mu tàmbali di ko fi duma jëm àllaaxira bu demee mu yóbbu ko sawara xable ma maati lu jiitu muy faatu day tàmbalee am mbugalam sunu boroom man ca nga xam ne awaaha mooy boroom caay-caay ga ajali waw wa minhu bokk na ca xeeti caay-caay la ca sunu boroom nara fel nara faye saay-saay ba annama naka lépp loo xam ne yusibu hoo dal na ko moom saay-saay bi abat ba faawu minal balaa ci balaa yi nga xam ne mooy xew addina loolee dal saay-saay ba niqmatullahi mbugalam yàlla mum wàcc ci kawam la fii ci addina al ahad yàlla may kenn wa anama naka lépp loo xam ne yenaaluhoo am na ko moom saay-saay ba minani ham ci ay xéewal yu ko sunu boroom may fii ci àddina makrun sunu boroom da ko cay fexeel ngir yaatal ay dumaam mastid raaji ànd ak mu jay ko ba mu defe ne moo gën ñépp ndekete sunu boroom da ko caanara duma sil arsi sunu boroom moomee nga xam ne mooy boroom aras na xam waawaaw bi aksi siitaati safaan ba nag mooy am ca nga xam ne mooy boroom ak topp yàlla maanaam mooy nit ku yiw ka kookee lépp lu ko sunu boroom may ci ay xéewal fii ci àddina bu demee keroog bis la xéewal yi gën a yokk ba keroog muy dugg àjjana lépp lu ko sunu boroom teg ci ay nattu fii moom mi boroom ak topp yàlla sunu boroom da koy fay ngir yaatalab yoolam keroog pencum yàlla mu gën a yaatu ca àjjana kon yow julit bi jàng sa diine laa tax xar bul xeeb mukk abat ba faw zanban wakaar bul xeeb mukk zanban bakaar walaw xalla doon lente ne mbakaar su ndaw la fa baadir na nga gaaw bitaw batin jëm citu tu bakaar booba li samat ngir yàlla may aji jubluwaay bay aajo na nga gaaw tuub minhu bakkaar booba tuub googee nag na soohin na ànd ak laabira xol wa ilaa takfirihi nga gaawantu jëm ci kaafara bakkaar booba bala ko sudu boroom misla salaatika ala nabiyina lu ni julli kañu solo muy yonent bi yónni ko ci ñun julli ci moom day far ay bakkaar salla wa sallama yal ko yàlla dolli teraanga ak al ahad yàlla may kenn yal na dolli teraanga ak jàmm ali ci yonent ba walaali ak ca ñu wal ashaabi ak abat ba faw wakka tahajudi layaali niki jóg julli ca diggu guddi day far ay wakkaar day jur ngërëmal yàlla day jur ak dem ajjana julli googu nag bil xusoo na ànd ragal yàlla wa matin ak ngay liggéeyal li kulli saalihin ñeel jépp aji baax muti tey aji topp yàlla boo koy liggéeyal di ko fajal ay aajoom yàlla dala cay farale say bakkaar yàlla dala cay gërëm te day yombal ak dem ajjana waka mujjaala satim ni ki di toog ak ñoom di deglu seeni waxtaan di jëfe seeni ndigal di bàyyi seeni tere boo koy def yàlla dalay faral say bakkaar boo koy def nag nanga ko def lil baari ngir yàlla mi aji bind ja jam ña subano tudd sellam ba sunu boroom na nga ca boole wa istixfaari nga bari looy jéggulu sunu boroom di wax astaxfirullah lu bari boo koy def say bàkkaar sunu boroom da koy far te astaxfirullah boo koy wax lu bari sax yàlla dalay wërsëgal te dalay génne ci ñaggi-ñaggi xol ak jafe-jafey addina ak tartari addina laa siyama rawaate na sayyiduhu sangam ba moom am nab sang allazi sangab astaghfirullah ba nga xam ne istahar siiw na sangab astaghfirullah nag sëriñ bi dina la ko jàngal ca kanam yaa ngi jàng masalikul jinaan téereb sëriñ Tuubaa bu màgg boobu yaa ngi ci paas soixante-neuf wa kasrati tasbihi del baril looy wax subhanallah yow jullit bi ay dan ba tey wal fikar del bari looy xalaat ci yàlla ak ngaralaak yàlla gi asamaan su maag su yaatu si na ko sunu borom defare na mu defare biddéew ya na mu defare jant muy leeral àddina bépp te doo dégg benn groupe buy riir groupe buy tàkk ngir joxe ak leer rekk bara moo leeral génn kër kenn dootul dégg jant bi leeral àddina bépp te doo dégg benn groupe buy riir ngarala ga ci yàlla def ba loolu mën am boo koy xalaat sunu boroom da lay jéggal say wàkkaar na mu defaree géej ga ak jën ya ca ak melokaanu ndox maag na ko xorome yemale ko te du forox du màggat du yàqu ngarala ga ca ne nga xalaat na mu defaree doj yaak suuf yaak xeer ya nga di ko xalaat na mu defaree picc yaak garab yaak caf ko yu wuute ya nga di ca xalaat yooyu day tax sunu borom jégg la say wàkkaar boo ca boolee nag di def ay subhanallah rawatina nag laa siyama rawatina salaatu hoo muy salaatu tasbih dinañ la ko jàngal ca kanam loolu tamit day tax sunu borom balla say wàkkaar waxiye moom nag salaatu tasbih ajal barakatan moo gën a màgg barke maanaam dafa gaaw lool ci sunu borom di la jéggal say wàkkaar kama rawahu noonu la ko nettilee man ka nga xam ne naqal toxal na xam-xam ci ëpp ci ëttub yonent bi alayhi salaatu wasalaam fasloon lii ab dog la fiiha ca xeeti caay-caay ya ay lu ma ca di la ko joxoñ fii rasaili ca mboolem caay-caay ba nga xam ko ba xàmmee ko waxasama suufiyu séddale na ka xam ne mooy suufiyanke ba tilka razaila mboolem xeeti caay-caay yooye da koo séddale lil xismay ni mu nekk ñaari xaaj bi xayri may ci lu dul nar saaxiratun am na caay-caay goo xam ne dane fang bés man koo gis baatina tan dafa am caay-caay goo xam ne daa biire kenn mënu koo gis fa saahira cay caay gu feeñ ga nag hiya moom araamun dafa araam fatlu bi nanga nga sàkku yow jullit bi almubaadara gaaw a tuub ga bu la mata deg doom aadama jàppee ba nga njuum te dal ba loola bokk ci say wakkaar